Ya, ya. ko jongamaa nii taaroo nii. waaw mujjee nii moo mujjee nii. Hmm. Hmm. lu ko dal. niroowuñu de. tet du ben ko yalla ak yali mais kenn ki la. ta nek way ban. wa dañ ko ko def. loolu moy lan. fi mu ndaw ci est-ce xam nga tay su bëgge am jamm day baxal ndox ba mu bax sotu ko ci pan bu mag. Mhm. dugg ci. loolu moy lan lu kadal? dal. dafa feebar wala deglu ko. lu doy war la ndoy su jigen bi daal dafa son son na lool. dama jot ak ay ñu sonal ma lool sama place lañ ma sonale woon ba ma bàyyi leneen place ba dem mais taxul ñu bàyyi ma Ndoye Bane dama yoroon atelier di ci ñëw di ci liggéey atelier bi dox lool ñu ma lu ne ñu indi ko ci place bi bu ñëw feebar liggéeykat bu ñëw dem ba ma bàyyi place ba ma bett may topp topp bu guddi di ko topp di ko topp di ko topp ba bett leen fa ay trois heures du matin ñuy sotti liggéey ci place bi bi ma leen fi bettee waxuma leen dara ma dem ki nga xamante ni xam naa ko ku góor ki ma waxtaan moom niki gis naa la démb ne dama bëgg rek nga bàyyi ma man xamul noonu yéen yéen a nekk ci place bi gis naa la gis naa sa soxna ah ma la doon ñaan ngeen bàyyi ma ma liggéey suma liggéey ndax man liggéey rek laa xam xawma leneen lu dul liggéey ba ma ba ma xàmmee ba léegi ñaq def ci sama bopp laa xam ak dimbali ko ci wërsëgam nekk ma nekk ci loolu ndoy ba nekk ci loolu ñu bàyyi quelque temps ñu reprendre commencé waat bi ñu commencé waatee ah ma yónnee fa ay kilifa yónnee naa fa délégué de quartier yónnee fa beneen kilifa ñu waxtaan ak moom mais daal nanguwuñ ma bàyyi. man tam man xëy na su ma demee yoon ñu waxtaan ak ñoom wala leen dinañ ma bàyyi ma dem yoon ñu ne demee yoon ñu arrangé waxtaan ak ñu mu ne ko nu ngeen bàyyi jaan mu liggéey parce que ku nekk ak sa wërsëg ñu dem ñu génn police bi mu ngi ne ma yow pare nga xaw ma kan waaye yow si fan yii pare nga man que boo dee yàlla nga taw xeer. ma daal di dem ma dem affaire bi gën a aggravé mënatuma xëy ci place bi place bi aussi ku ñëw di liggéey da ngay xuloog man client bu ñëw da ngay xuloog man même fi ma luyee sax pour ma am fa jàmm problème sama kër fu ma dëkk mu ñëw fa suul wala mu toj fa ay nan kër gu ma dëkk duma xëy mukk romb buntu kër ga te fekk ma fa ay nen yu ñu toj wala deret ay ginaar yu ñu rey mané li nak man dëgg yalla mi ngi may bëgg jaax ma daal di tok xamu benen taxé ñaan ñaan na fu nekk affaire bu dañu man xéena suma bayé place bi dina ma ma place bi ñu tama bàyyi ñu xattal ma ay sétané ak ay rab sama yaram bi duma nelaw gudd duma nelaw bëccëg ay gunoor lañuy sol ci sama yaram bi gunoor yi dox ci sama yaram bi ndoy baan su ma tàngalee ndox sotti suma yaram bi même pas quinze minutes ñu solaat gunóor yi ci suma yaram ndoy baan mënuma am ak kenn jàmm kenn maanaam dañu dem ba nit ñi léegi dañ may daw jël na pexe bu nekk nag pexe bu nekk def nañ ko pexe bu nekk def nañ ko man nag sama pexe moo jeex sama bien yëpp jaay naa ak def sama yaram fu ma dégg sëriñ dem naa bu ñu jógee di ma woo téléphone nit ma pareeguñ ci yow ñu may topp ba ma dem mujj dem yoon parce que sama sécurité wóoratul xaw ma lu ñu bëgg xaw ma xaw ma luñ bëgg fu ma dëkk ñu ngi may góolu dima dima kar damay génn benn yoon di dox ci tal rek mutan rëll bëgg rëll sama kaw rek ma tëb ñaari yoon du benn lu jóge ne fukki at ak ñeent problème bi bi mu amee léegi mu dox sama diggante ak ñoom ñi ma doon liggéeyandool mujj du ma ci juboo kenn ñaar fa ñett ma dem yoon wala ma xuloo kii bu subaa ma xuloo kii ñu naan dafa bari ay dafa bari ay fu ne dugg naa fa fu ne dem naa fa fu ma xam jëm naa fa amul awma kenn koo xamante ni yaakaar naa ni fii su ma fa jëmee solution bi arrêté. day baan fukki at ak nangam xëyatuma mënuma liggéey mënuma def dara sama liggéey yàqu mën a tam dama doon dem bitim réew yor sama teraanga yor samay oto lépp doy baan maa ngi leen di di xoole. te ba doy baan sonn gaz neuf kilo bi laay jënd une semaine bala koy mag mu jeex ndax ndox mu tàng mi du teggeeku chaque dix minutes ma sotti ndox mu tàng mi sama yaram gunóor yi di walla walli sama yaram gunóor yi di walla walli sama bopp bi ndoy man mën naa ñaqal sama bopp parce que man liggéey rek laa xam ñun ndoy baan xoolal ku dul nelaw guddi doo nelaw bëccëg ndoy baan sama yaram bi mu ko muucu muucu muucu ba deret aw mag barki démb laa génn hôpital hôpital lañ ma téyoo barki dem la genn hôpital rien que dem naa ba faiblesse mënatuma amatuma deret amatuma ndox ba pare ñu may fat doy baan man daal ndoy sama pexe jeex na sama pexe jeex na ngi ñaan te man ma fat wala nga xam ku ko mën a fat ba dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi yàgg na metti na mënuma liggéey mënatuma tukki mënuma sëy sama mbokk yi dañ naan wax bëggul sëy dafay dafay dàq xamuñu lu xew ku ma waxal mu des takk rek mu France mu yoroon fa atelier di ñëw ci biir marché bi léegi tox na mi ngi ci ginnaaw raay bi man bàyyi naa leen nag atelier man bañ naa ko ba ñawatuma bañ naa ba jënduma jaay ma bañ naa ko ba defatuma dara maa ngi leen di ndooy nan ma bàyyi ngir yàlla ak yonent bi góor ki mi ngi liggéey liggéey moom al yàlla nañ jig laayam tey wërsëgam talul dara dara dara dara ndax man ñu fanaane di ma sonal di mucc sama yaram bi ba bët set may xoole ba bët set bu bët setee keneen moonte bu teyee ñu soppaliku jaan bu ëllëgee ñu soppaliku ñu soppaliku xaj façon bu nekk dañ koy muus sax dañ koy soppaliku du ñëw ci man nduy baan sonn naa ay waay sonn naa ay ku dégg man maa faj nga dimbali ma teqale ma ak seytaan ma booleel léegi njugub la def su ma génnee ñu def ndiraan topp ma su ma tukkee ñu def ndiraan moog oto bi nii la ñuy ndiiree ba fa jëm di sol sama yaram bi gunóor ñuy dox ci suma yaram bi ndoy baan naan naa garab bu ne hôpital loo hôpital dem naa fa ndoy baan sëriñoo sëriñoo dem naa fa ndoy baan maa ngi nii ay ndoy baan ay ndoy baan dimbale ma ndoy sonn naa vingt quatre heures sur vingt quatre amatuma xarit amatuma am di ci am kenn mënatuma dem fenn kenn du ñëw ci man duma dem ci kenn dafa metti ndooy dafa metti lépp jaay na ak jaay naa sama oto jaay naa sama kër loo xam ne bu ma ko jaayee faju ko jaay naa ak ba léegi maa ngi ne xool lu ma jaay sama bien yëpp jaay ak fajoo ko ndooy ci yàlla teg loo coono gi ma nekk maa ngi ñaan ku ko dégg te man ma ko dindal dindal ma moom am na loo xam xalaatuma kat wax nga di ko dégg mais lépp moom mënuma ko wax ci lu ñaaw ak ci lu bon luñ may def ak lu xaj ak lu saay-saay doy baan mënuma ko wax yu sew yu bon yoo xamante ni doy yu bon yoo xamante ni kenn mënu ko nettali kenn mënu ko loo xalaat ci lu ñaaw rek def nañ ma ko liggéey yu bon yoo xam ne ay kort yoo xamante ni doy mënuma la ko wax foo toog di def émission def ka bu ko yemale rek ci ci ci xalaas foo nekk di def émission rek lancel ma fa ndax koo xalaat ci fajkat ci ndar gi ñu koy tudd ci ci réew mi duñ ma dañuy dem ba ni ma franchement mënatuma ci dara man li ma jaaxal mooy ku jigéen ki mun fu ma mën a nekk fu ma tukki man bu dee nit kese la dana ma jaaxal ndax ku jigéen ki fu ma mën a nekk ci àddina dana fa teew damay toog ba yàgg rek mu di jame sama kaw ànd dina taxaw di ma reetaan ku jigéen ki moo ma njëkk jaaxal man xaw ma nit la xaw ma lu mu doon. fu ma nekk ci àddina fu ma mën a tukki di faju damay toog ba xaaji guddi rek mu di jamet sama kaw di ma reetaan fekk avant muy reetaan envoyé na affaire yi ñu sonal ma ba ma nekk ci xat-xat nekk si coonam mu doog a ñëw taxaw yooyu saay mu ànd xaritum jigéen ñëw ñu taxaw di ma reetaan man xaw ma ñuy yan façon nit lañ man daal jaaxal na ku jigéen ki moom ku jigéen ki moom bu dee nit kese la dana jaaxal jaaxal na ma trop léeg-léeg bu ñu bu ñuy ñëw bu jëndee di ñëw ñooy ànd wala mu bàyyi ñu sonal la ba nga sonn mu doogay teew ci sa kanam di la man daal jaaxle na jaaxle naa jaaxle na jaaxle naa jaaxle sama yaram bi dañ koo naana naana naana naan ba mënuma taxaw amatuma deret amatuma ndox Ndoye Bane xamul lii lu mu doon. image bi affaire yi mooy gunóor yi du looy gis même man mi di wax ak yow du gunóor bi dama koy gis lu may yëg ci suma biir yaram la. paan yu chocolat yooyu yu ngande yooyu ñuy jaay ci marché bi yu ngande yu ngande yi moom laay tàngal ndox rax ci ndox ba mu ba sama yaram ñene ko ma dugg ci xooj ci ba affaire yooyu buusu. ma génn day baxal ndox ba mu bax sotti ko ci du ko dal niroowuñu de nii du ko dal niroowuñu de teet du benn waaw mujjee nii moo mujjee nii ku jongamaa nii taaroo nii waaw mujjee nii moo mujjee nii xam hmm. ñettu fanu bàmmel ku jongamaa nii taaroo nii waaw mujjee nii moo mujjee sama yaram du la réer wala wala. tax nga yàq doomu aadama doomu aadama yàq. la waykat ba wax nu mu tuddati ay descent. Mhm. ndaw si pareegul de. kon am na suite fu mu toll nii. déglu waaw nañ déglu ba xam.